Kër Massar li gën a tax mu fës peut-être temps yi ci information yi mooy euh, y a eu la Covid mais après cela inondation yi xool nañ ni en fait commune la yi nga xam ne commune la bu gën touché wu par rapport ak inondation yi mais avant ça on a eu à avoir des problèmes euh, d'insécurité parce qu'il y a des moments boo xoolee fii éclairage public bi ça ne se fait pas comme il faut te yenn heures yi booy dugg Kër Massar tu ne vois même pas de lumière en fait tay keur Massar amna heure bo xam ne fi dugg ci tu peine à venir mën nga def une heure de temps voire même plus diggante bo xolé rond-point après péage bi noonu jëm ci biir keur Massar loolu yëpp li ko waral il y a pas eu de vision par rapport aux infrastructures en fait de route et que tout keur Massar se regroupe au niveau du rond-point pour que les ku nekk mën jël sa voie mën dem donc wesso point boobu tam amna yenen point yu parce que tay bo xolé récemment keur Massar y a eu un soulèvement mais avant feetu korité bi ou tabaski bi boo xoolee maire bi bon jëloon ay nervi ba doon daan day déguerpir pire ko on appelle communément les marchands ambulants donc mu nekkoon tamit benn situation désastreuse boo xam ne tey le mouvement Kër Massar Debout defoon na ci sax point de presse ba doon ñaaw ñaawlu loolu donc yooyu yëpp ce sont des problèmes qui sont à Kër Massar et que ñun li ñu soxal mooy ñu ji ma xool nu ñuy toogee parce que Kër Massar suñu Kër Massar la voilà loolu taxone sax bo xolé mouvement keur Massar debout bi ñu né ah il est temps que ñu taxawal ko parce que keur Massar bo xolé intellectuel yu bari ñu ngi fi yéwo des gens qui sont aptes en fait à pouvoir amener des solutions par rapport ak problème yi nga xamné mom moom soulever fi donc du loolu aussi il y a d'autres domaines tay buñu jëlé domaine santé bi peut-être ci loolu lay yëngu man loolu peut-être au cours dinañ ci gëna développer parce que tay bo xolé on a un centre de santé mais je me disais que en fait, les, par rapport à l'acte de la décentralisation, on a des compétences transférées et parmi ces neuf domaines de compétences, le domaine en fait, de la santé est primordial. Parce que nit dafa am ñaar muy boo suurul doo mën a dox sa yitte mais boo suuree nag alors que tey feebar daaneel la tamit do mën dox sa yité kon ñaar yoy dafa nek yo xamné dama né priorité la Le domaine santé bi malheureusement yalla dafa def on a un centre de santé mais vocation yi mu am en fait c'est réduit à un poste de santé, du fait qu'il y a un bloc, il y a d'autres services qui devaient marcher. Moi, si je prends l'exemple, il y a des analyses qui nous, qui nous viennent en fait de Dantec au niveau de Dakar, alors que so quand tu leur demandes par rapport à l'enquête, il faut que alors que ce sont des paramètres c'est facile à faire. Donc, où est la compétence en fait qui est transférée Et lolu je me dis qu'on a la possibilité parce que le centre de santé bobu il ko inauguré c'est pratiquement depuis 2013 voilà donc war nañ ci def ay compétences yi ko war que population mun see jëriñu donc loolu nag moo waral ma ne c'est à notre nous notre devoir ñu taxaw léegi joytu loolu wax ko jima ma nag invité ñëpp ñu xool globalement nu ñuy andee solution ci loolu bu weesoo loolu tam y a d'autres problèmes qui ont toujours surgi si je prends l'exemple du volet sportif parce que tey yàlla dafa def ni nawetaan yi boo xoolee léegi fu baratuñ ko Kër Massar peut-être phase préliminaire lañ doon def Kër ça. du fait que terrain bi fi nek bo xolé terrain bi mo doon valoir depuis lors bon avons on a eu yëngu ci domaine de bi presque ay 2004 2003 mais pratiquement il n'y a pas eu de changement bon soit disant qu'il y avait un investissement bu mairie bi jotone def ko ci mais on sent que en fait changement amu ci voilà parce que nous voulons c'est d'avoir un complexe parce que ñu dem tay di wal yane que ce soit Mbaw muy feneen ak feneen muy Pikine ak feneen boo xoolee loolu Kër Massar da ko war am te je pense que peut-être dernier point bi je si revenir par rapport au département moi je me dis que les les infrastructures de base am na yu bëri yoo xam ne dafa war a ñëw te loolu dafa nekk li nga xam ne tey population bi droit la est-ce que vous voyez maintenant nag bon comme je dis peut-être c'est l'État qui a failli mais aussi nous qui sont là comme habitants de de nous avons une responsabilité envers cela voilà donc peut-être grosso modo de manière ramassée loolu lañ am di wax par rapport à la situation actuelle de Kermassar. Mais maintenant bon inondation yi nag moo nekk li nga xam ne moo gën parce que récemment on a vu le cas en fait de Jaxaay ndox bi nu fa au niveau des Parcelles Assainies aussi ndox bi nu mu fa bëree te loolu mooy anecdote bi sax en fait le fait qu'on parle de Parcelles Assainies est-ce que vous voyez parce que normalement quand on parle de Parcelles Assainies il ne devait pas y avoir de problème d'inondation mais malheureusement nous ñu xoolee ba en fait ce sont ces quartiers-là qui ont eu beaucoup de problèmes. Parcelles assainies, alors t 15, unité 16, t 13, 14, bon, on a eu à faire des tournées. Peut-être après, on va partager l'information avec vous sur les tournées qu'on a pu faire pour apporter notre soutien, en fait, que ce soit moral, financier et tout, par rapport à cette population qui vit dans ces eaux. Nous avons que ce soit en matériel et tout, pour que au moins nous avons une solution, en fait, peut-être probable, euh, comment dirais-je euh, actuelle mais nag li may wax rek nit day am il faut que ñu o. xalaat plus haut c'est-à-dire pour ëllëg loolu bañ ci amati te mooy lan mooy assainissement voilà assainissement bi c'est un point boo xam war nañ ci wax par rapport ak Kër Massar. voilà ci wàllu inondation yi sax mën nañ ci des tuuti rek par rapport ak mhm. déplacement bi Macky Sall defaloon defoon temps yi passé mhm. ndax yaakaar nga ni loolu dina am saafara que ni dinañu régler problème inondation ci ah bon am nañ suñu njort bu rafet parce que vraiment moi je me dis que xam nga nit li nga xamné sa liguey la boko deful rek tu as failli voilà parce que lolu ñom buñ ko deful seen liguey la wa population bi nak ñu ngi toog di leen xaar parce que def nañ ay promesses mais man limay wax rek Sénégal li ci gëna nek nak problème moy lan moy les gens ont tendance à parler alors que on doit en fait wañi wax bi liguey lu bari lolu moom solo parce que tay dafa nek lo xamné moi je me dis que war ñoo xaar ba problème këtt ne jonn ñuy doga andi solution c'est-à-dire li dirige toujours c'est prévoir avoir une vision de loin li kat buñ ko ci est-ce que vous voyez donc lolu mo waroon nek li nga moy avant problème c'est-à-dire que li nga curage avant même l'hivernage Il y a déjà en fait un assainissement qui est déjà là parce que si je prends l'exemple des Parcelles Assainies ils nous disent qu'il y a déjà des canaux de canalisation qui vont jusqu'à Malika mais malheureusement en fait le curage pré-hivernal n'a pas été effectué c'est ça incombe en fait à la responsabilité de la mairie nous ñoo waron jël devant def avant que taw bi di parce que nous xolé ndox nous nous bari bu canal normalement ñu ngi dox ndox bi du du voilà bon on attend en fait des actes qui seront posés yo xamné vraiment ça sera une solution définitive parce que si on nous tamit dañ les mêmes problèmes en fait reviennent on a vu que y a beaucoup de problèmes voilà té avec nos, nos échanges en fait le mouvement que Moussa Debout boo xoolee ay cadres ñoo ko voilà des gens yoo ont ne ku nekk yaa ngi sa liggéey c'est-à-dire tey ñu ngi yëngu ci dara bëgg nañ nag ci li ñuy yëngu hmm? ñu jéem a xool nan la ñuy ay solution par rapport ak suñu population par rapport à fi nga nous ne fa parce que ñun Kër Moussa rek la Et am te lolo waran ce sont des jeunes en fait de différentes origines tey moi je suis à Médina Kell fii mais si je prends l'exemple du président Adama il habite au des Assainies il y a d'autres qui habitent à Boune à la cité ay nomades yi xam nga ainsi de suite léegi nag li ñu boole mooy lan mooy Kër Massar moo ñu ñoxal moo ñu moo ñu soxal autant pour moi parce que boo seetloo problème yaa ngi fi ñun nag dañoo jóg pour xool def état des lieux recenser lépp li nga xam ne problème la ci vole bu mu mënti doon ji ma xool nu ñu ciy àndee saafara xalaat teg li nga xam ne incha allah rabi dina nekk loo xam ne day nekk solution pérenne loo xam ne du doon loo xam ne li ñu naan taf yëngal def ko après ëllëg. problème bi ñu jotoon a résoudre mu ñëwaat daanuwaat ci Kër Massar loolu moo waral la naissance même de Kër Massar debout. ñëpp boo xoolee on a on vient des origines diverses voilà comme ni mu ko expliquer sànq mais li ñu soxal mooy Kër Massar boo xoolee li ñu ëmb mooy idéo bi nga xam ne tey jii nii mooy defar Kër Massar moo ñëpp lañ ci woo et aussi il faut signaler parce que peut-être on va aller au niveau du deuxième point de parler des ambitions politiques mais comme je dis en fait nous ne sommes pas des politiciens mais nous sommes des gens qui font de la politique parce que li ñu intéressé mooy que cité bi ñu dëkk te muy Kër que ñun ñu embellir ko parce que moom des gens qui sont apolitiques il y a beaucoup de gens qui viennent qui sont en fait il y a une divergence divergence même politique c'est-à-dire qui n'appartient pas au même parti mais li ñu soxal mooy intérêt commun bi te loolu lañ ci table bi def ba Kër Massar au niveau du Sénégal mais au niveau de la sous-région et au niveau national et international. tey bay sa parce que nit commencé dara je pense que c'est tant que commencer, commencé parce que même avant le mouvement bi si je prends mon exemple au niveau de mon quartier où je suis au Médinaquel, donc on a commencé cela au niveau en fait de la commune on s'est regroupé pour fonder ce qu'on appelle le ça Debout l'olu tamit du parce que on évite que ce soit wa Malika muy tu as un peu, hein, di un peu, ainsi de suite nous, ñëpp en fait de fédérer pour que au moins ñu boole suñu doole parce que li may wax rek nit moom soo xoolee doole mooy andi mbooloo mooy andi doole voilà te ñun loolu lañu gëm voilà c'est que ñu bañ a jiital intérêt personnel jiital intérêt population bi. loolu moom yàgg nañ ko xalaat parce que boo xoolee l'idée de département soo xoolee bon 2013 ko gars yi mais avant loolu c'était même au moment où Wade était là donc euh, c'était depuis 2009 avant qu'il euh, parce que moment bi muy ñëw di inaugurer soo xoolee le centre de santé il y a des doléances qui ont été en fait posées sur la table c'est des doléances concernant en fait le département de Kermassar. mais pour donner un exemple c'est-à-dire peut-être tay nous avons commencé mooy li may wax sank rek bay ci sa debout parce que tamit il pour fédérer il faut commencer du plus haut après élargir mais tay si je prends l'exemple du Mbobos, le problème la que nous participons ñun participer même avant même que Kermassar debout parce que Kermassar debout c'est une entité qui est récente voilà Tay bo xolé par rapport à xex biñ doon xex euh, Mbëbës xam nga Mbëbës tay so c'est l'insalubrité qu'on a, on a beaucoup de problèmes de, de maladies respiratoires, mais c'est lié à cela. Parce que tey bon nit munoo nga nekk ci commune même bu fekkee sax ni Kër Massar lañ mais impacté peut-être ni gën proche c'est à Malika mais l'eau day ñëw ba répercussion au niveau de la population de Kermassal. Et comme je dirais le Sénégal ñoo bokk même bu faites ni tey ñun commune Kër Massar le li nga à ne euh, à la ak doomu aadama loolu dañ ci war a taxaw xeex ko loolu waraloon bañ doon def soo xoolee euh, journée de marche bi gars yi defoon brassard rouge ak yooyu yooyu c'était avant même que Massar debout on a eu à participer ñëw dooleel waa Malika te ñun loolu lañ gëm que ce soit toute la commune et hors de la commune s'il y a des actes yoo xam dañ ko reposer pour aider dans le sens que population bi mën a dund lépp li nga xam ne c'est encore mieux loolu ci loolu lañ taxaw. tey mouvement bi fan la bëgg a yóbbu Keur Massar. bon mouvement bi boo xoolee. C'est un mouvement récent, comme je dis, parce que bon, je me souviens que la première réunion qu'on a eu à, faire, c'était le 28 décembre 2012. Le 29, on a eu à élire en fait un bureau qui est provisoire. Voilà. C'est lolo, nek ci ba ni, ni, ni, mouvement c'est juste un cadre de dialogue et de concertation voilà li am nak yalla xam est-ce que vous voyez mais li ñu amal solo moy liggéey mom lañ gëm Té liggéey boko li nga problème solution je me dis que keur debout ça doit être un exemple on parle de keur Massar debout mais ëllëg ça sera en fait département de keur debout et au-delà mu nekk une fédération bo xam dina département yi échange parce que je me dis que modèle après on va vulgariser ça parce que modèle de développement tay on a pas mal de départements et aussi ñun war nañ mëna joxe exemple bo xamné peut-être bon inshallah rabbi mun naa ne ça sera le dernier département qui sera né mais lolu war mën mëna tax ñu ne ñun ñoy nekk ci gannaaw war nañ mëna nekk un modèle pour le Sénégal té ñun lolu lañ gëm. population bi ñun mom lañ ci nekkal té pour que population bi tay bu ñu taxawé né keur Massar Debout war na mëna andi solution yi lolu dañ ci dem voilà té tamit nit il faut qu'on se dise la vérité munoo ne je ne fais pas de la politique nous tous nous faisons de la politique parce que faire de la politique c'est quoi c'est faire une action sociale tey yaa tane ki nekk sa côté muy sa dëkkandoo nga jàppale ko est-ce que vous voyez donc c'est ça l'idée moi waral nag ni ñun tey pour que suñu action mën a tas fépp bu fekkee ni tey dem jëli reen yooyu muy mairie bi mooy tax suñu action mën a tas fépp loolu incha allah dinañ ci nekk te dinañ ci dinañ ci liggéey te commencé nañ ko xaaruñu ci kenn nag voilà moo tax on appelle tout le monde à une fédération c'est-à-dire ñu am yéene bi ne defar moo ñu moo voilà ñun nag loolu ñu ngi ciy woo ñëpp ñu ñëw jàpp ci pour que ñu liggéey incha allah bu laaje ñu jël mairie bi ñu dem jëli mairie bi incha allah rabi loolu la ñuy ñaan. benn instant nii je me dis que c' est une idée qui est très grande est ce que vous parce que on a commencé par la formation des jeunes femmes des femmes et des jeunes boo seetloo période bi ñu ko defoon c' est de janvier au mois de de mars lañ defoon formation bi sur beaucoup de techniques, c'est-à-dire euh, préparation, que ce soit d'eau de javel, de savon, et ce que transformation de jus locaux. On a fait pas mal de formations. même la transformation du céréal, c'est-à-dire, les parce que j'appelle les commencé on a eu à former pas mal de plus de 10 GIE presque 12 GIE et le 8 mars on a fêté avec eux par une journée de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein Nous avons fait mu fête fas yéene ñu arrêté parce que bu lolu wesso Covid bi peut-être mo waral formation yi ñu xaw ko standby mais inshallah dinañ ci ñëwaat té bu wesso lolu aussi def nañ ay journée de don que ce soit période Ramadan bi muy tabaski bi ainsi de suite Covid bi aussi jox nañ ci ay masque ay gel yo xamné dem nañ ci marché yi sensibiliser leen jox leen ko bu wesso lolu nak bon peut-être question bi mu may wax ni dina ci sawar tontu mais comme je dis aussi euh, projet dafa am solo ci lo gis voilà président peut-être bu mu fi ñëwé je me dis que le problème récurrent c'était quoi c'était les inondations Je ko waxé nak nek na nak cadre bo xamné mais je me dis que wax avons pour defal wa keur alors qu'on ne les attend pas sur ça parce que le projet la bo xamné pas nekkam da est-ce que vous voyez parce que le département de keur Massar loolu dafa mënutul parce que l'agglomération la bo presque 7000 am ñu ñu ñu on parle de 25 km2. est-ce que vous voyez 138 quartiers voire 143 quartiers. Oui, donc pour le bon xam ne tey jii nii regorger ci ressource en fait nous mënul ñàkk département mais aussi comme je dis nit booy des dara tay kër sax bokoy tabax fo nga fondation donc état bi yëpp na ko brûlés. brûler c'est-à-dire projet bi nañ ko mûrir xol surtout les impacts qu'il y aura demain c'est-à-dire les impacts positifs mais aussi il peut y avoir des impacts négatifs Ça nga wax nga ko on parlait de l'acte 3 de la décentralisation on a parlé de régions en collectivité locale maintenant on parle de département en collectivité locale mais aussi nous mu donne je sais que dina am lo xam dinañu bolé mais d'une autre côté tam dina des divergence parce que si je prends l'exemple du maire de Mbao il est sorti en parlant que voilà au lieu de parler de département de Pékin, on devait voir à Tengue Rufisque vous voyez donc yoy du ñàkk té bo sétlo li ñuy wax ni département tay dina amat yeneen découpage en fait territorial yo xam day je prends exemple Kër Massar Medina Thiel peut-être ak Darou Missette ñom ñoo wo xam nga bokkoon tay di defandoo lepp tay bu découpage bi ñëwee ñu né ah dañuy jël à partir en fait de la route qui est qui est rentrée bi jógee national dugu ñu route bob moy doon séparation bi xam nga lool rek ya ya y'a une séparation sociale qui est là et sociologique donc yooyu yëpp ce sont des choses yo xamné war nañ ko xol xol tamit au point infrastructurel lan la wara mëna def avant di wax département parce que xol nañ ni tali on parle maintenant d'échangeur gis nga problème de déplacement bi fi le volet santé on a ko le bloc pourtant ça existe au niveau du centre de santé mais on le pratique pas du fait qu'il y a pas de compétences requises parce que tay amuñu peut-être un réanimateur qui est là amuñu tay un chirurgien adapté à faire des actes chirurgicaux au niveau du centre de santé alors que c'est une en fait compétence transférée Lorsque les populations population Kër Massar war nañ ci jëriñu le laboratoire ne fonctionne pas comme nous ne fonctionnons, pas fonctionner ba nit ñi di joggé fi imaginer dantek fu mu ci Dakar te war fee jóge war 8h heures la fekk déplacement bobu nit ki ak condition yoy lolou yëpp man je me dis que état lolou moy responsabilité def le tout que nit ki lépp li nga xamné da ko soxla muy infrastructure sociale de base que lolou yëpp mën moté kon lolou nañ ko moté ba paré balaa wax département. bon si je prends l'exemple parce que aussi Kermassar en fait c'est une commune qui fait partie en fait du département de Pikine donc c'est sûr et certain qu'il y aura un impact au niveau du département de Pikine avant qu'on ne parle des autres communes. Est-ce que vous voyez Maintenant aussi, comme je dis, malheureusement il y a nak ni découpage des fois moy andi sax yenn friction si je prends l'exemple en fait du départ de la commune de Mbao presque que xoolee ñun fa la la forêt classée de Mbao on a ça a suscité beaucoup de problèmes parce qu'il y a un moment bon la mairie a voulu mettre un, tableau publicitaire mettant en, exergue la bienvenue en fait à la commune de Kermansar. vous voyez que tableau bobu bañ ko confectionné ba jul mu voilà parce que parti Bobu, wa Mbao ñoko mom du fait que ci forêt classée de Mbao la bokk gis nga yoyu moi je dis que buñ démé demee ba wax waxu département tous ces problèmes là devaient être réglés parce que ku nekk aussi war nga xol sa intérêt mais je pense que l'intérêt commun loolu mo solo même si je prends l'exemple des inondations bañ né l'eau il faut en fait jim ko drainer yóbbu ko ci forêt bi pourtant par rapport aux environnementalistes, ils ont parlé en fait des problèmes écologiques que ça peut poser. Maintenant aussi, il faut voir quels sont les points négatifs, mais aussi quels sont les points positifs. Parce que nous sommes tous ci ndox bi nga ne ndox bi ah mënu ko yóbbu ci forêt alors que nous ñi boo les ndox bi sont dans seen kër moo tax gis nga globalement il faut qu'on fasse une étude Il c'est qu'il faut que les gens osent talk, weccoo xalaat en plus bind tek li nga xamné projet bu viable lay don par rapport en fait au département de Kermassar. C'est ce que j'invite à tous les acteurs, à commencer par l'État et tous les responsables qui sont à Kermassar. waaw bon instant bi dañ leen di sant di leen gërëm di leen remercier parce aussi li ñu war a mën a leeral mooy Massar Debout li ko soxal inter ou wu Kër Massar te boo seetloo ay jeunes la yoo xam ne ku nekk yaa ngi yeewu dem di xëy nekk ci sa et que Kër Massar Debout boo seetloo ni ni en matière de finance boo seetloo ce sont les propres le propre argent des contribuables yi nga xamné tay tey ñoom ñoo ŋànk Kër def récemment on a eu à se déplacer au niveau en fait euh, des Parcelles assini de Medina Kell de Darou et des autres zones cité à mais ñooñu bañ ñëwee di leen aider tamit dafa li nga ñun apporté comme aide donc nous appelons tous les partenaires yi nga xamné vraiment ce sont des personnes de bonne volonté ñuy def ngir yalla voilà ñew ñu japp liggéey en fait def li nga xam moy tax keur Massar jëm kanam nous profitons aussi de l'occasion pour un euh, pour faire un appel à toute la population de keur Massar que ce soit les cadres xam nga ñi nga xam peut-être sen niveau yegul fenn yi parce que moy li ma wax rek ñun on a besoin de tout le monde voilà on a besoin de main donc il faut que ñu ñëw jappo baña a xeeb kenn muy mag ndaw di Jigen. ñep soxla nañ len ci lolu lañ len di wo di wo ñep dal pour ñu ñëw liggéey keur Massar lolu mo ci am solo voilà bon de remercier c'est Wi-Fi, de remercier aussi tous les membres de Kër à travers le président Adama et du wo ils sont prêts à venir vraiment nous aider dans ce combat merci